Jamil maa ngi lay nuyu bu baax. waaw ah, soxna Fanta ñu ngi lay fay. Mhm. nuyu téléspectateur yi ñu lay seetaan nuyu téléspectateur yi ñuy seetaan yëpp. Mhm. Mhm. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa ah, di kontaan lool ci dalal bi. di ñaan yàlla fa tabaarakallaahu ñu tàmbali émission bi si jàmm jeexal ko si jàmm ak salaam Euh, <laughs> incha allah euh, mhm. mhm. di bàyyi sa mbokku taalibe bi Mouhamed ci Walfadjri. Mhm. Euh, Mawlana Cheikh Al Hadj Mansour. Mhm. ñu mbooleem jullit yëpp di lay jiyaar ci bisu àjjuma ji itam. jërëjëf ñu nuyu waat waat ci waawoon ñu seetaan. Mhm. Euh, suñu kilifa xam naa ni moom moo fi nekk euh, Serigne Mansour Sy Djamil ñu ngi koy mhm. bu baax a baax. ci àjjuma gi. Euh, Baye Djamil tey ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ne dañuy gis faral di gis jàngkat yi bu gàmmu amee ku njëkk ñëw. mooy féete ci wàllu micro bi ku mujjee ñëw kooku moom dañuy jàpp ne fa mel ni dañ koy xaw a euh, euh, fàtte lan moo waral loolu. waaw loolu soxna Fanta dinañ sawar ci tontu ci euh, man de wax dëgg yàlla fi ma nekk muy kër Cheikh Seydou Mouhamadul musafaa si Jamil te suñu bàyyi Moussa Niang jiite wàllu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun kër googu de wax dëgg yàlla loolu amu fa te loolu bu amee it tamit dëgg yàlla man samay mbokk jàngkat fu ma leen fekk dëgg yàlla dinañ ma yaatal dinañ ma ubbil seen bopp dëgg yàlla loolu nag mun si ñàkk parce que ki nga xam ne day tagg yonent bi am kilifa ak ki amul kilifa mënuñu yem xëy na ku amul kilifa mhm. euh, man mën nañ daje ci tànt buñ dajee ci tànt ki njëkk yor micro bi jàpp ne man su ma gàttalee rek amaana su ma joxee kële mën na yóbbu bës bi mm-hmm. wala mën na yóbbu weccet bi mm-hmm. tabaarakallaahu yooyu lool du si ñàkk mm-hmm. loolu du si ñàkk ndax tabaarakallaahu tàgge boo gis jàppal diw règle boo gis am na exception mais ñi nga xam ne ñoom laa xam nga xam ne ay missionnaire lañ ku mel ne suñu Baye Moussa Niang moom ma wax euh, sëñ Abdou Aziz Mbaye xaaj jut kenn mbay ñoo ñooñu nga xam ne si ndigal lañuy la ñuy nekk tant bu ñu dem ñoo koy jàng wala seen kilifa moo leen fa yóbbu ñu ànd faak moom man ci doxin woowu laay dox parce que ñun ñëpp kenn ku nekk fa tabaarakallaahu yaa ngi ci sa leneen looy yëngatu ndax sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu dafa daan wax ni tarku tasabbu bi xul min suu ima adabin mm-hmm. sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu yi daan daan di wax ne man kaana za xerfatin mhm. fal yuxiha abadan mhm. moo gën sàggan dem di tuumaal yàlla ak dëkk yi mhm. ku am sa métti na ko fonk di ko dundal moo gën nga sàggan nga sàggan naan dëkk bi neexul ak dëkk bi dafa nangam ak ni ñu koy waxee tabaarakallaahu bëgguma tooñ euh, loolu li koy faral di waral mooy euh, ngay nga jàpp ne rek yow da war di way ngir di dundee da ngaa war di woy ngir yoo sa jabar mhm. da war di soo woyul mhm. amaana doo am dépense mhm. souvent ñi nga xamante ne ci rang boobu lañ nekk ñooy faral di def loolu waaye ñun ñi nga xam ne dañoo am kilifa Cheikh Seydi Mouhamadoul Mansour Sy Djamil encadré ñu formé ñu teg ñu ci ndigal su ne ñu dem leen ñu dem euh, fu ñu amul ndigalam duñ fa dem euh, loolu defe naa ñun du suñ du suñ problème ñun d'accord nga wax lu am solo muy métier bi d'abord. ah nit nit dafa war a am dafa war a am. métier euh, mhm. doog a jublu ci beneen passion boo xamante ne xëy na bëgg nga ko wala mu nga bëggu koo sax def liggéey mais gis nañu comme ni nga ko waxee rek euh, waykat yi jàngkat yi léegi sax laay wax. Mhm. Euh, dañu jël mbir mi. fekki sax mhm. côté ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu musique gu àdduna. Ah, dañ leen dañ dem nañ ba fekk fekki leen. gis nañ ko ci ton sonorité bi nga xamante ne nii euh, moom la ñu jël léegi bu njëkk boo musaana déglu ay jàng rek da ngay xam ne nii ay jàng la mm-hmm. mais tey da ngay déglu jàng yi mais mën mën nga koo fecc sax jëm ci euh, waaw am na am na lu ñu cof lu ñu cof côté boobu euh, commencé nag dugal ci ay tagg nit ñi yonent bi léegi tuuti nga koy dégg ci biir ci biir mais mais dañuy préféré tagg ñi nga xamante ne tam ñu ne la moo bëgg rasul ma ne man man damay laajte kan moo bañ rasul man ma waaw loolu su ma ko déggee waykat di ko wax man damay laajte kan moo ko bañ macha allah ñun ñëpp ñoo ko bëgg mais dañ dafa mel ni dañ koy jaare pour xëy na def ko benn sorte de wayaan euh, mm-hmm. jàng euh, way nit ki euh, pour xëy na am nu mu nu mu nu mu def yow bu ñu demee ba yéen bu ñu leen mësaan dégg wala ñu gis leen xëy na suñu xel day dellu ci yàlla lu bari euh, bu ñu demee ba léegi gis leen ci yenn xëccoo yi euh, gis leen ci yenn euh, yoo xamante ne ni dootuñu mën a am fa la ñuy référé wu ah, loolu dinaa si sa war a tontu mhm. dafa am suñu benn baay bu baax Abdou Aziz Mbaye mhm. bu Tiwaawan dañu daje Paris mhm. mu ne ma njagal léegi ba baa yóbbu wuñ la ci jànkat yi feccu la waate ma ne ko ah ñaanu ma ko yàlla de maa ngi góorgóorlu lu ma man donte nag euh, jeunes yi ak jigéen ñi ñoo ëpp ci tànt yi léegi ñoom bu fekkee da ngay jàng téere yi nii kese kese sax amaana mën nañ bañ a apprécier kii dafa sedd waay kii moom bu yëngal tànt yaa ngi dégg il faut mu yëngal euh, mais ñu ngi ciy góor góorlu lu ñu man ci kër Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha ak xadara Tiwaawan yëpp mhm. ñu ngi ciy góorgóorlu mais du ñàkk foo foo dem di nga fa fekk ñoo xamante ne defe nañ ne suñ ko deful duñ am yalwaan guddi diw gu duun mm-hmm. Abdou Azim ne ma njaga euh, mbir mi tagg yonante bi dafa metti ndax nit ñi gëmatuñ mm-hmm. waaye boo ko dee def bu taabudan lillah mm-hmm. mooy ja jaamu yàlla loo soxla yàlla dana ko faj te doo tàllal kenn loxo kenn du la ñàkkal fayda te wax dëgg yàlla euh, loolu ñu ngi koy gis dëgg yàlla mhm. mën naa ne soxla bu ñu am mhm. yàlla dinañu ci defal sutura ndax Seydi Hadji Malick daf ne fa mhm. madxul Moustapha fawzun wa xunmun euh, ne tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, na fa tabaarakallaahu texe la koom la richesse la booy tagg yonent bi yow mënoo ñàkk loo soxla yenent bi dana la ko fajal te man dëgg yàlla napp naa ci sama bopp te yàlla wan na ma ci résultat parce que dama am tudd. Mhm. sama taaw mhm. mu judd. 2016 mhm. 16 décembre 2016. Mouhamed ma tuddee ko yonent bi sallallahu alayhi wa may dem si daral bi. Euh, yoruma lu dul 400000. te ndugaguma defaguma dara. ma gis benn nag bi gën a ponkal ci gétt bi comme man yonent bi laa préparé. pour tuddee ko sama doom sama taaw. ma ko doon ñaan yàlla yàlla defal ma ko. heure bu ma daan tagg yonent bi ba pare. damay ñaan sama xel yàlla yàlla nag ma may taaw bu góor ma tuddee ko yonent bi yàlla defal ma ko mhm. may ma taaw bu góor ma tuddee ko yonent bi mhm. ma dem ba ba nga xam ne tudd bi bi ne si veille bi ma dem mhm. daral bi ma demee daral yow ma lu dul quatre cent ma ñëw ci gétt bi osé ne yonent bi tagg sama xel laa ko wax daan ne nag gën a mag ci gétt bi laa bëgg ñoome yi nag bi gën a mag seer na de yow ma lu dul quatre cent mille ma ne waa bëgg naa ma jaayanteeg yonent bi sama xel mm-hmm. jënd nag bi mm-hmm. balaa guddi amaan naa lu ëpp lu ëpp lu ëpp six cent da nga koy am ba am ba am lu lu raw loolu sallallahu alayhi wa sallam alors euh, Fanta ma joxaat la kàddu gi nga dem ci euh, beneen invité euh, xam naa ne dina am naa dina am question pour moom waaw mhm. moom tur bi Mohamed Sall Mohamed Mohamed Sall. Sall mhm. Ngari maa ngi lay <laughs> nuyuwaat. borom dëkk bi borom dëkk bi. waaw Mohamed. Mhm. yéen ñi ay jàngkat nekk ay jeunes. gis ngeen ni léegi woy jàngkat yi bari nañ bari goo xamante Jennifer mhm. Bell mhm. am na ñoo xamante ne daanaka bëgguñu sax di euh, yëngu ci leneen lu du euh, jàng nii rek mhm. mais est-ce que loolu métier la waaw soxna si comme ni nga ko waxee rek comme ni ko xaaj yi dara jaay jëmin waxee euh, mbir mu nekk rek boo ci demee kenn ku nekk am na mu cooy duggee parce que léeg-léeg nga fekk mbooloo moo xam ni fa ñu toog di nekk diine rek moo leen ñor mais am na koo xam ni leneen moo ko fa andi comme ni mu ko waxee rek tarbiyu bi nga xam ni moom lañ ñuy defal ci ëtt bi ñuy yeewoo muy kër Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha mooy ni mbir mi balaa nga coy soobu liggéey moom mooy priorité loolu ngay jiite moom la ñu sëñ Babacar waxoon ba mu waxee suñu diine wax suñu tarixa métier la wax soogaa wax daa daaira soogaa wax leneen kon li ëpp importance moom mooy ñu juutal suñu liggéey te ñun ci loolu lañ nekk parce que ñu ngi nekk ci leneen avant ñuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw tagg yonent bi nag defu ñu ko lu dul xëy na nag am na ñu ko def comme ni ko xaaj njaga waxee am na ñu ko def ñoo xam ni jàpp nañ ni suñu ko deful seen kër duñ fa yóbbu dépasse ñàkkul ni noonu lañ ko def waaye mbir mi boo ko jàppee tagg yonanti boo ko jàppee tarbiyu rek lépp loo bëgg ci yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barkeem yàlla dina la ko defal. Mhm. waaw loolu daal laa xam ni. waaw ñu ñëw ci ñaareelu laaj bi mhm. Fadel ndax léeg-léeg dañuy gis ni am na mhm. ñoo xamante ah jigéen ñi dañ leen di faral di di tooñ. Euh, tiitar gi ak yooyu ci biir tante yi. ak tamit tamit gëstu téere yi bu baax a baax pour mën a euh, foo dem ci euh, tante yi nga mën a jàng loo xamante ne. ku jàng alxuraan dëgg-dëgg dina xam ne kii mu ngi gëstu li nga xamante ne muy téere yi. waaw soxna si loolu doguma la sax. ñun yàlla mi ngi natt bi ñuy dugg ci tàgg yenant bi yàgg na ay quatre-vingt-treize yooyu loolu boo ko génnee suñu at ay douze ans la ñuy am mm-hmm. ñu dajeeg suñu kilifa bu ñu seexal xaaji su Djamil mm-hmm. bi mu gisee li mu njëkk wax mooy nii bu ngeen bëggee tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day ni jàngi boobu fekkoon nañu sax ñu ngi si daara ji mais am na ñu newul woon ci daara ji mm-hmm. mu wax ni Serigne Moustapha Serigne Moustapha Sy Djamil daan wax naan ëllëg xam-xam mooy way taxoon ñi ñëwul woon sax ci daara ji mu poussé leen di leen fayal ngir ñuy jàng pour bu ëllëgee lépp loo xam ne lu ñuy def rek ko sukkandiku ci xam-xam waaw loolu nag yàlla dimbale ñu ñu ba loolu daluñu leneen li nga xam ne it mi ngi dal nit ñi ci géewu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy soxna yi xay na ñàkkul ni am na loo xam ne dina jaira mais du ñëpp ñooyam mais kooku moo diis mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay gis léeg-léeg ñu tuddee ko nit sax mu am melokaan bu mu mel tuuba mooy nekk luy diis si moom rawatina nag nitu kase di jàng xasida yoo xam ne lépp ay mag yoo xam ne dañu ci sonn lool pour tagg yonent bi sallallahu nga ñëw dabu ko rek ci téere di ko jàng te xamoo leer gi ci nekk muy dugg ci yow du ñàkk jigéen ñi am na mel ak yow waaye li am importance mooy nga xam ki ngay tagg mooy kan ak yow mi koy tagg yow yaay kan ba nit ku daw jëm ci yow it nga xam naka nga koy accueillir ba mu bañ a bokk ak ñeneen ñu ko ñi ñu bokkul ak yoon di defee. Mhm. waaw mais it xam nga da foofu doguma la damay faral di dégg sama eh, suñu yaay jooju maman Nene Kome. Mhm. muy wax eh, faral di wax naan dawal mbége sax boo koy def fexeel ba am fulaay jël pay. Mhm. Ah, xam nga eh, li nga wax dafa am solo Fanta parce que dama fi mës a am benn invité Fatou Fatou kii la woon. maa ngi maa ngi beneen Fatou bi dëkk Tëngéej. Fatou. Fatou bi dëkk a sey yi merci beaucoup merci beaucoup Fatmata yi moom moo ko amoon comme invité donc am na bi bi muy bi muy jàngee ba pare euh, dama ko posé question ne tey li ñu jàngal tey lan lay firi lan lay tekki wax ji lan la euh, mu ne ma teewluwu ma ko dinaa ko gëstu jiwaat donc est-ce que nit mën naa way mën naa wax loo xamante ne. Euh, teewlu ko teewluwoo ko xamuloo yow li ngay wax lan la yow ci sa bopp. Mm-hmm. est-ce que loolu mën na dugg ci yow bay dugg ci keneen. ba kooku war cee yëg li mu ci war a yëg ba xëy na amaana su fekkoon lu ko war a soppi la mu soppi ko. Mm-hmm. su fekkoon lu ko war a yedd la mu yedd ko ndegam yow yow mi koy wax xamuloo ko. nga mooy question bi nga bi nga laal léegi mu am solo man titre gi je trouve que c'est bien. c'est bien ci beneen bi <laughs> waaw. titre gi je trouve que c'est parce que li ngay wax euh, sentir ci à l'aise xam ko. Mm-hmm. Euh, soo koy wax tu es à l'aise bu la neexee tiiteeku rawatina ci ki ñuy tagg muy Seydina Mohamed kooku su la neexee jaayu su la neexee tiitaru euh, loolu loolu moom man dama leen koy bàyyee loolu mën na nekk pour man euh, mais juste rek ñu ñu ñuy fexe di xam li ñuy jàng lan la pour bu ñu leen ko laajee wala bu nit soxlaa ñu mën ko expliquer ci nopp nit ñi nga am benn yëg parce que nee nañ loo loo yëgul munoo ko yëgloo kenn avant nit ki di am sensation bi def naa ne yëg-yëg bi ci yow la war a jugee ba pare mais loo xamul nan nga koy yëgee aussi. doogu hmm. euh, kuy tàgg yonent bi sallallahu sama bopp laa koy càmbalee. Mhm. kuy tàgg yonent bi war nga xam li ngay wax lan la. ndax Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour si Jamil lim ñu njëkk a tàggatee mooy euh, ndax yéen a ngi jàng ni ko Mouhamed waxee. Mhm. ñu ne ko ñu ngi jàng. Mhm. mu ne kër gi. sama baay daf daan wax ne xam-xam mooy way ëllëg. kuy tàgg yonent bi te xamoo li ngay def ëllëg amul benn njariñ mu ne sama papa Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil moo daan dar Serigne Babacar ak maam Abdoul Aziz Dabaax mm-hmm. mm-hmm. si gàmmu Tiwaawan mm-hmm. maam Abdou toog nii Seydi Jamil taawam toog nii ñu jàng ba jeexal téere yëpp bi ñu jàngee ba jeexal téere yëpp Serigne Babacar fu mu dugg si gàmm gis nga gàmmukat su fekkee day waxtaan su fekkee day waxtaan yow mi nga xam ne yaay waykat léeg-léeg yaa ko war a mhm. delloo si mhm. Mhm. yaa ko war a delloo si dina dugg foo xam ne amaana bayit bi mën na fatt ci xelam wala teewlu ko ci xelam yow yaa ko fay dugal mu dellu si léeg-léeg jànkat dana euh, waxtaankat conférencier dana dem ba xaw a nelaw ci tànt mais jànkat boo koy dugalaat indiwaat dina dem ba déconnecté moo koy connecté waat moo tax xam-xam mooy way loolu la ñu sëñ tàggat moo tax fa tabaarakallaahu am na ñoo xamante ne dañoo am ndigal di way def ko métier muy seen way mam Abdou Aziz baax daf daan wax ni su fekkoon dellu woon na ndaw métier bi muy am mooy tàgg yonent bi jàng alquran kon loolu métier bu noble la sëñ Moustapha Sy Jamil suñu sang suñu royukaay tàgg yonent bi boo ko daan fekk këram bu jàngul alquran mi ngi jàng te te kutubu tariqa booy téere tariqa yi wala mi ngi jàng xilaasu zahab wala mi ngi jàng téere baayam yi Serigne Babacar Sy di jaabante si balcon bi di ko woy di jàng xilaasu zahab nga xam ne mooy biographie yonent bi sa alayhi wa sallam loolu moom mooy loolu moom nga xamante ne ah. euh, des fois nga gis benn jàngkat ak benn frikat bu kii jàngee kii fri defe naa loolu am na solo demal fi nga doon bëgg dem Fatou Diouf a ñëw euh, Fabel ah. xam nga ne euh, dama am samay samay xam naa fu fa laa bëgg ñu ñu tëjee ko. ñu indil ma jàng gi nga xamante ne mooy euh, jàng sëñ Babacar. waaye di ko may képp koo xamante ne ku sant sukku na rek may naa la ko rawatina Ami Makalu. Fanta Sukuna. daal di leen bàyyi ñu ñu. ak sama maam mère ma. mère na Sukuna mère ma sama maam maa rek mu pone ma. <laughs> <laughs> d'accord ayca Fanta <laughs> yaa raakiban naxwa almadinati qaasidan fa balligh salaami lilhabibi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam fi rawdatihi alxusna munaaya wa bugyati wa fiha sifa qalbi wa ruuxi wa raaxati fa in ba'udat anni wa azza mazaaruha fa timthaaluha ladayya ahsanu suurati unazzi'u tarfa al-'ayn fi husni rawdiha fa yaslu biha lubbi wa sirri wa muhjati fa ha ana ya qutba al-'awaalimi kulliha uqabbiluha shawqan li ishfaa'i 'illati laa ilaaha illa Allah فها أنا يا قطب العوالم كلها uqabiluha shawqan li ishfaai xillati sëriñ Babacar Seydi Seydi Babacar yaa yor diina jë Seydi Seydi Babacar yaa yor diina jë ku la xool dootul xool keneen ku la dajool ambi leneen ku la fay dootul mane keneen yaa yor diina jë société li la waxay wax yonenti bee ba tey nabi jël seex sërif mi xëy selal diine jëf waaw walaay seex Tijaan sërif a xëy seen mboolem ajamu ku day fa Maodo mi tànn mbay selal diine jëf loxo ca kaw sama ñaw kaa xalima mooy bind na géej waaw di ma nandal sa mbooti reer yaa yor diine yanu nandal sa yaa yor nandal sa yaa yor diine ji Babacar yaa dafa neexul ku sës ci yow dafa neexul ku sës ci yow dootoo jaaxle a doy na pay yaa yor diine jee Serigne Babacar dafa neexul ni yaa fi raw li di jaaxaan ngay xase yaayo diine jee wala dafa neexul ni yaay dugg bay ku la bañ deewoo ku la sooboon cerey wuru si ngay ñaage garu ngay nekk njaloor barmoon ku ko yëttiitoo doomi gënee fi doon jaloor yaa yor diine ji waa wallaay Seydi Seydi Babacar yaa yor diine ji waa wallaay Seydi Seydi Babacar yaa yor diine Sëriñ Babacar sa loxo yi ca kaw sëñ Babacar seen loxo yi ca kaw la ñuy waye seen loxo yi ca kaw sëñ Babacar xalifa jar na ko Sëriñ Babacar sa loxo yi ca kaw xalifa jaru na ko xalifa jaru na ko bay si jaru na ko ay wala xaysa kay sëñ Babacar la xaysa ka wal fajiri la xaysa ka sëñ Babacar seenu la xaysa ka xalifa jaru na ko ay wala xati yonen seenu la xati yonen mooy baayu sëy moom yonen bi jaru na ko jëmil borom faas seenu la xaysa kay sëy di jëmil ku dem defaru mooy borom faas ku dem defaru sang baa nga faas ku dem defaru bay jëmil ku dem defaru soo amee saas ku dem defaru bul di bay jëmil ku dem defaru defaru bàyyi soore jamil ku dem defaru yow mi am saas ku dem defaru bàyyi soore jamil ku dem defaru aca dem faas ku dem soore mi ku dem defaru yéen petit des bàyyi soore mi ku dem defaru boole ñu dem faas leen fi bàyyi incha euh, allah alors merci beaucoup mu mel ni li ñu fi indi am na solo. Mhm. Fanta wax ci am na solo waaye li ñu fi nga xamante ne moom la ñu tëjee mhm. am na solo mu mel ni du doon seen yoon bu mujj dañ leen di jox rendez vous beneen yoon. beneen yoon incha allah su ko defee ñu gën a yaatal. ñu gën a yaatal. Mhm. Euh, Ndiaga Mbaye tamit euh, tàggatool. Ah, waaw waaw ñu ngi nuyu suñu Serigne Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour. si Jamil di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér. ak ay rakam yi ca kër ga fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp. tabaarakallaahu di nuyu suñu Baye Moussa Niang ñoom mën jaay jëmee suñu mm-hmm. uh, naataango yooyu ñu nekkal foofu mm-hmm. di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soppay bàyyi jëmee fa tabaarakallaahu mm-hmm. suñu groupe ba ca kër ga ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu fa tabaarakallaahu suñu yaay soxna Xadi Njaay ak waa Kelle Njaay ca Louga yëpp waa Ndëngu tabaarakallaahu nuyu suñu soxna soxna Ami Fajoor tabaarakallaahu suñu taaw Seydina Muhammad ak ma tuddee Sëriñ Mansour Si Jëmil tabaarakallaahu ak très bien alors Mouhamed Serigne Mouhamed Sall waaye ñu uh-huh. nuyu ñëpp uh-huh. di jéggalu ñëpp bu fi njuumte amee jërëjëf uh, di jiite ci nuyoo bi comme ni ko xaaji Ndiaga waxee suñu uh-huh. kilifa Mawlana Cheikh Al Hadji Mansour waaye ci di nuyu mbooleem ku baax ku ñu bàyyi yëmbal suñu mbokk dëkkandoo yëpp jiite ci nuyoo bi nag uh, suñu séeri suñu lépp jana yaay si kay na jëmin ah, ñu koy nuyu di ko ziar bu di nuyu mbooleem ah. soppay sóora jëmin yëpp waaw di groupe ñoom nday njaay beeg soxna umma ah, soxna xoyaan ak soxna ay daak soxna Kulofal ñoom ñëpp rek ñu leen ziar ak groupe bi nga xam ne moom la ñuy ànd ak ñun ñoom njaga yëpp di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla yàlla ñu may ñu yàgg ko bi koy